maaleykum sama gars j'espère que vous allez bien président de la république Bassirou gouvernement bi ne leen taxaw ñëpp ñi nga xam ne ñoom le fleuve Sénégal nangu seen i kër ñu relogé waat leen waaye relancé waat seen i activité joxe waat na ndigal it ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi lépp lu ñu mën ci élection législative yi nañ ko def ba lépp jaar ci yoon tey woo acteur politique yi ne leen ñu boole suñu euh, xel ak suñu xol xam ne Sénégal jàmm rek ko jig leneen du dul jàmm jigu ko gannaaw loolu am na ay nomination yu es poste yu bari euh, bu ci mel ne bu Falla Fleur siiw na ak euh, Sadikh Top waaw bi moom wàccuñ mu sedd ndax Barthélemy Dias nee na man maa wax ne ah gan Gueye Dany otage politique la Thierno Alassane Sall daal ne Déthié moo raw juda tra traître la ndax Déthié Fall dafa quitté sàmm sa kàddu rejoindre Pastef ne moom bu nekkee député sax bëggul poste député bi waaye dafa rejoindre Pastef parce que xool na ba xool xam ne Sonko dëggantaan Njaay dafa bëgg senegal waa jàmm ak njëriñ bu amadu Ba nee na ñoom dootuñu am candidat Ndakaaru dañuy bàyyi candidat euh, sàmm sa kàddu wëy waa gëm sa bopp dajale nañoo ak société civile bi ngir bëgg def euh, mobilisation ngir ñu libérer Bougane ci ni mu gën a gaawee waaw ñoom njabootu Serigne Moustapha si mu waa PUR nee nañ génnuñu sàmm sa kàddu ba tey ñu ngi fa. ñàkk teew président Macky Sall ak euh, Karim wadd tax na yeneen candidat yu bees ak yeneen mouvement politique nar a juddu am doole lool walay ndeysaan Sénéra nee na débat Amadou Ba ak Ousmane Sonko bu mu amee ci réew mi. Amnesty daal ne ko ànd nañoo gi yow dëgg la Alioune Badara Mbacké docteur ba ñu ne woon daa dóor jabar ja yoon teg na ko loxo procureur bu Matam a ko jàpp lay ndeysaan waa ji moom euh, jabaram la tëddal ndakate faru jabar ja moo bàyyi bu mu lëndëm mu dikki di raasaatu jabar ja waa ji génne jaas yi ñu jàppante jàppante yu am ngay gaañante Barça kii na